ak li xew Sénégal yi dafa waxul de ay di jàmbat journaux yëpp moom la ñu xëyee daanaka sama gars yi ñoom dañoo xuus ci biir ndox mi bu baax doore ko ak journal bi nga xam ne moo di l'observateur li mu xamalekat moo di taw yu ni mel gëj naa am Sénégal mbënn mu ni mel tamit gëj nañ ko fee gis mu daal di def ci titre ba au moo jë mu nekkat juróom-ñetti doomu adama ñoo daal di ñàkk seen bakkan ci diiru 24 heures ñeent ñett diwaanu Touba lañ fekk baax ñett ca Fatick benn ca Kër Massar mu ne hôpital Philippe Maguilène Senghor di fee ca biir ndox ma fay ca diwaanu Yoff la nekk ba tax ñi nga xam ne ñoo di malade yi ñu daal di seet fu ñu leen daal di rawale aéroport moom këru këru voyage gii ñu tuddee Deltar moo daal di lànk ne du yóbbu li nga xam ne ñoo di ay kiliyaanam ñu ne miiru këru Youssou Ndour ga moom dafa daal di daanu ca biir ndox ma météo ne xaaral gisagu leen dara ni ndox mi kat dina wéy di sotteeku fii ci Sénégal Sud Quotidien di beneen yéenekaay moom daal di wax ci li nga xam ne moo di ndox mi mu ne Sénégal fi mu nekk moo nekk ci bëj ndax kat ñett juróom-ñetti doomu aadama ñu daal di ñàkk seen bakkante seen bakkan diggante Touba Bambey ak fële nga xam ne moo di jawle xalif général di murid daal di génne benn milliard teg ko ci kaw bi ngir ñu wallu ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi nguurug Sénégal daal di amal li nga xam ne moo di plan Orsec Sénélec moom jamono googu daal di dog courant ci yenn gox ya goxaat yi nekk fii ci biir réew mi Vieux Sané du suñu naataango yëkkati xalimaam ci biir yéenekaay bi li ma xamale kat moo di jël sa njàmbarte fi mu nekk moo ci doon moom la ñu toll ci loolu nag mu ci woo nguur gi mu def ci li ko war ndax kat ngir jàmmaarloog li nga xam ne moo di jafe-jafe bi askan wi dund waaye tamit muy woo askan wi ñu jël seen njàmbarte ndax kat ndox mi jeexagut lépp yi au quotidien nekk geneen yéenekaay ne juróom benn nit ñoo ci daal di ñàkk seen bakkan yàqu-yàqu yi bëri ci diggante Dakar ak Touba mu ne gaal gi kat moo far suux ci biir ndox mi gox yi ca bokk nag bokk na ci Arafat Ouest Foire Yoff ginnaaw raay noo fa nga xam ne lu ëpp juróom fukki kër ña ngi ca biir ndox ya mu ne lu ni mel lañu gis fële nga xam ne moo di Jàmmagan Sicap Mbao Fass Mbao yëmbal route de Boune Jidda Caaroy kaw fa nga Caaroy gaar fa nga xam ne foofu mu juróom-ñaari quartier suñu sàgganul ñoom ñëpp a nar des ca biir ndox ya mu ne jamono googu ki nga xam ne moo di njiitum réew mi di président Macky Sall ma nga fële ca Afrique du Sud beneen yéene kaay mu di direct info moom it ci ndox moom la daal di wax Sall mu ne ndox mi kat dafa bëri lool ci ndakaaru ak yenn gox yi nekk ci biir Sénégal juróom benn nit la wax ne ñoo ci seen bakkan yàqu-yàqu yi daal di bari lool mu ne ci ñooñ bokk na si ñetti xale yoo xam ne ñu nga fekk baax fële ca Fatick ñaar fële ci Touba benn xale bu góor boo xam ne am na fukki at ak juróom daal di lab fële ci banlieue Ndakaaru li ma waral ñenn ci askan wi daal di génn mer bay futt baare yenn ci mbedd yi mu ne nag Cheikh Amar bokk ci ñi nga xam ne ay kilifa lañ ci biir réew ginnaaw bi nguurug Sénégal woote daal dinañ jël 52 millions daal di koy teg ci table bi libération ne ko ki xëdd kaabe kay mooy xalif général di murit ndax moom benn milliard daal di teg ci Touba bi ngir kat ñu génn waatu askanu Touba yi nga xam ne ñu ngi ca biir ndox ma mu ne nag lii nag gëj na fee am boobaak léegi def na fanweeri at ba ki nga xam ne moo di ilimaanu joriñ yi di Abdoul Mbaye mu ne kat jéew ju mag la joo xam ni jar nañu jël ay mesures yu mag yoo xam ni ngir daal di koy saafara keneen yéene kaay gu ci wax moo di le populaire mu ne fi mu nekk lu toll ci juróom benn famille ñoo daal juróom benn téeméeri famille ñoo daal di nekk ci mbedd mi ndax kat seen kër ya ndox moo ko nangu ci ci diggante Dakar ak Touba la mu ne la mbir yi gën a taree moo tax président Macky Sall di amal plan Orsec ba noppi déclenché li nga xam ne bépp matuwaay la ak service yi ko yore ñu daal di la koy jébbal ngir ñu bi dañu ko xamal mu di accident nga amoon ca Kaffrine journal bi li ñu xamal moo di kat bilan nga daal dina yokk ndax ña ca faatu fi nekk toll nañ ci ñaar fukk ak juróom benn le soleil yéene kaay moom ci inondation yi la daal di wax mu ne inondation yi nag li ko waral moo di taw bi fi teg ci Ndakaaru lii moo waral nguur gi déclenché li nga xam ne moo di plan Orsec lépp loo xam ne matuwaay lu daal di koy jël jébbal ko service yi nga xam ne ñoo war a taxawu askan wi ñenn ñi nga xam ne ndox di yóbbu ci li nga xam ne moo di taxawaayu nguur gi ak gaawte gi nga xam ne moo ci daal am las yéene kaay ne ko Macky Sall kay lii mooy première révolte gi nga xam ne daal dina ko jëloon ndax kat démb askan wu bëri daal dinañu génn fépp wane seen mer ak seen ñàkk ànd ci nga xam ne la nguur gi doxalee Yoff démb laale na ñëw takk der yi ba li nga xam ne moo di lacrymogène gëjoon génn Sénégal gisaat nañ ko fi Rufisque askan wa ñoom ñoo baara tali ba dakkal dem beeg dikk bi seen bii di télévision bi di Sen TV dem ñu lu toll ci ñetti millions ñetti téeméeri million daal di nañ koy dajale daal di koy jébbal askan wi nga xam ne ñu ngi ci biir ndox mi benn journal boo xam ni moom suuxul ci biir ndox mi mu di lanket yéenekaay moom rek ci xëy daal di génn feneen mu ne kat ki nga xam ne la fi Sénégal ki nga xam ne la banque mondiale envoyé Sénégal mu di juge bi di Casper Matt yegg si na fi moom na xam-xam dafa màcc ci ñi nga xam ne dañuy jëlee xaalis ci biir réew mi sàmba dem di ko làq bitim réew mu jàppale ci réew mi Sénégal ngir gars yi daal di koy delloosi loolu mooy lan lubal koppar. lubal koppar bàyyi xuusa ci ndox mi ngay ñëw non man nag xuusuma mais sama munu ko amoon a taataaw genre càndum gi xuus ba xëy si wuñ. Hmm. kon ci wàllu sport la ñu tàbbi. wàllu sport dañu koy doore ak journal bi nga xam ne moo di sunu làmb moom li mu wax kat moo di diggante làmb ji ki nga xam ne moo di Baboy. mu ne fi mu nekk kat ki muy laaj moo di tafaatin mu ne fi mu nekk nangu naa cee taq nir nangu naa cee taq nir ba tonnerre moom ci biir yéene kaay mu ne écrit Pikine mbooloo baaxul ba tax fi mu nekk moom dafa fas yéene jóge sëriñ Modou Niang eh, ci biir yéene kaay mu ne maa ngi ci gannaaw ki nga xam ne mooy docteur Alioune Sarr ak waa CNG bi wàllu football yéene kaay wàllu football yéen i kaay lañ koy daanee ak es ak journal bi nga xam ne moo di stade dernier rescapé li nga xam ne moo di mondial 2002 euh, Petit Jules moom moo bokk ci gaynde yi nga xam ne moo ci desoon waaye fi mu nekk nee na day tekki ay godaasam ci équipe nationale bu football football diggante Paris saint ak Bordeaux démb la woon ki nga xam nag moo di Lamine Sané di défenseur du Sénégal ñu ne moo téye Ibrahimovic bu mënut a dugal benn bi Afrique Afro Basket U moins 18 maanaam suñu gaynde yi nga xam ne amaguñ fukki at ak juróom-ñett ñu daal di jël ndam li ci kaw équipe bi nga xam ne moo di Côte d'Ivoire mu nekk nag titre gu njëkk ci ñi nga xam ne ñoo di moins 18 ans yooyu ci wàllu basket la. jërëjëf El Hadj Mody Gueye. jërëjëf sax dig daje. 19h. incha allah ci kàllaamay